jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey noo ngi ci bisub bi nga xamante ni mooy màggalu xasida yi fii nga xamante mooy Touba Jaalibatal Maraqib euh, fas yéene ànd ak Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Souhaïbou niñ leen ko waxee euh, lépp loo xam ne xew na fi ci ay njàngum xasida wala ay interview dañ leen amale ak moom dafa daana jëmu ji ngeen jàkkaar lool ñu bare bare dootuñu ko laaj mooy Baye Niss Mbaye Nourou Daare ni ñu fekk ko fii mu ànd ak mbooloo mu bare bare mi nekk ci ginnaawam euh, dafa naa ñoom ñëpp yor Nourou Daare Euh, ngay def bis sa kër tudd ko Nuuru ni ma di ko def tudd ko ma Mafatul Bisri keneen di ko def ñu koy def ci gox goxaane ba tey jii nag ñu war a daje nag def màggalu xasida yi mu mel ne kon liñ doon def nun mooy jàkka yi waaye xam nga ne bu ajjuma jotee ñëpp dañuy laf jàkk yi dem ca jumaa yi tey nag ñu ñëw ci jumaa ju mag yi nga xam ne mooy ak akbar mooy fii nga xam ne mooy jaalibatul maraqib te ko ko mate na fi muy Serigne Amsatou Mbacké Serigne Soyebu euh, bàyyi nis tey man mbégte nga yëg ak ban ngay jox mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan télévision ma fàttul Bichri ànd ceeg euh, Tawfekh Production ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la def ban message ngay lancé ci mbokk yi nga xam ne bëgg nañoo ñëw waaye xëy na ña nga toog seen kër bitim réew di ko seetaan waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci bi salallaahu taala alayhi wa sallam ñu ñaanal seex Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi ci ànd ak wér di ñaanal sëñ am sa mi nga xam ne mooy taxaw bis bi mu yàgg fi ci ànd ak wér di ñaanal waa kër Sëriñ Tuubaa gépp ñu ànd fi ci yàgg ak wér di ñaan ci daraje nabi Mustafa salallaahu taala wa sallam ñi nga xam te ne am nañu yéene ñëw ci mënunoo yegg si ñi fi nekk dinañ leen fasaaleel ngir jëmi borom Tuubaa mbir mi nag doon na loo xam te ni xasida la moo ko tax a jóg ci la ñuy nekk ba faatu ci li gën a wóor nag mooy nañ jàpp benn fonk yëpp jëfe ndigal bàyyi tere nan defar jikko yi ngàpp suñ jukki lépp lu ñaan yàlla danañ ko may bi barkat Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul barkeb nooru daari asiman min darari lxasuudi salli ala nadmin bi tukassiru ajri wa bisri dalika almudassiru yaa man bi aslaxta li ma xad fasad muayisan minni ya xaasidan xasad wa salliman alayhi fi l aali وصحبي يا من لي يجود بالمرام صل وسلم من يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وصحبه المحزبين وفرحا بالنظم ذا المخربين صل وسلم من يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل حين وعندك اجعلني سرور الصالحين سل بتلي من علي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين